tey ci samedi bi lañ doon biral li nga xam ne mooy élection njiital fédération sénégalaise de football maanaam kan mooy toog ci siège boobu noonu wuutu ki nga xam ne moo nekk Augustin Senghor ginnaaw ñaari candidats yi nga ne ràññee woon nañ leen bu baax a baax ñaar ñoo ko noon jàngonte ginnaaw ñu bëri ba ñu delloo ginnaaw ne ñoom doonatuñ candidat tey nag lañ doon def vote nga xam ne mooy njiital génération foot ak ki nga xam ne moo nekk Augustin Senghor moom moom may ne moo toogoon ci siège boobu noonu tey nag def nañ élection yi waaye ki nga xam ne mooy Madi Touré moom da cee ne moo nekk Augustin Senghor Senghor am 325 voix moom nag moo mujj a gagné li nga xam ne mooy raw gàddu gi kon nag ki nga xam ne moo nekk Augustin Senghor jëlaat na 16 ba toog ca ba atum 2025 lay jiite li nga xam ne moo nekk njiital fédération sénégalaise na ci défaite boobu noonu bi waaye na am tension na gaay ba ñu toog ñu dal ci jàmm moom mu nangu defetam su ko defee moom mu tugg ci otam nga xam ne mooy Touré moom nag ki nga xam ne mooy Augustin Senghor gis ngeen laata vote yi waxoon ne uh, bu gañee maa dina ñëw rek félicité ko te xam ne mooy Augustin Senghor waxam boobu uh, uh, a baax ndax ñoom ñëpp ñoo bokk Sénégal te lu jëmale la ñu war dox mbir mi warul doon xiiroo ngaaye donte ne kenn ku nekk am nga camp far waaye lu ñuy ñaan rek suñu njiit yi nga xam ne ñoo jiite li nga xam ne mooy football Sénégal nañu fexe rek mbir mi dem kanam moo am solo jërë ngeen jëf